wax ji gën a wóor mooy xorom moom du yàq ndox doonte sax day xorom soo xam ne kookaa ko fabriqué waaye du xoromu cosaan sus yàlla si sax du tax mu yàq ndox ma lu may nag mu tucc tuccal xeetu gàncax ba def ko xorom kooku moom nee nañu dana yàq ndox ma benn boobu rek dañu wax ne mooy yàq ndox aw bi mutawallidin wala ci aji juddoo minhu ci ndox mi ba tey la soppi ndox ma bu fekkee ci ndox ma la juddoo du ko yàq mel ne ay walax njaan bu ndox mi yàggee dana koy am du yàq dara ca ndox ma aw bi tooli muksin wala ci yàggu sax ga ndox mi mënees na koo teg rek kenn bañ koo laal ba mu yàgg lool lool mu jekki-jekki xeeñal boppam xet gu naqari loola du ca wàññi dara aw bi daabixin wala ci aji sibit maanaam aji laabal taahirin juy aji laab nga xattiraan ni ki godoron loolu takk-takk la bu yaatoo yaatu boo xam ne na nga ko jàpp bu baax mooy mboolem ndab yi nga xam ne dees cay def ndox nga xam def ndox moo tax ñu wut leen boo jëlee matière boo xam ne bu laab la moo xam day godoro gi wax moo xam day nennab moo xam day ay xor moo xam day ciment yépp a ci yem boo ko ca raaxee mbaa nga doon ko ko setale bëgg mu set yépp ñoo ci yemoo gannaaw boo ci defee ndox bu ndox ma soppi ko it jéggale nañu ko du wàññi dara mënees na koo jëfandikoo xam ne kon bërigo yi nga raax ciment ak mbuusi yéeg der yi nga xam ne dañ koy sibij ak nenat ngir mu set yooyu yëpp gannaaw buñ ca defee ndox ndox ma soppiku ngir loolee it du ca wàññi dara moo xam melaw wa moo soppiku ca ndox ma wala xet ga wala couleur ba moo xam soppiku ga dafa am doole wala soppiku ga amul doole moo xam ci tukki lañu nekk booba moo xam nekkuñu ci tukki booba aw bi maa wala ci la nga xam ne yaa asuru dana jafe al ihtiraasu wattandiku minhu ci moom ka tibb nin ni ki ab xatax aw waraqi shajarin wala ay xobi garab ba tey loolu beneen takk-takk la maanaam ndox moo xam ne doomi aadama mënu koo muur ni ki ab déeg wala ab deq wala ab teen ngelaw li ngelaw nag di ca indi xobi garab yeeg xatax ak xobi gerte yu mel noonu wala xotti gerte kooku du ca wàññi dara bu soppi ko du ca wàññi dara ndax mëneesu koo moytu waaye nag soo amee ndab loo xam ne mën nga koo muur ba loolee du ca dem mbaa seetane boo xam ne am na kubéer ba loolu mën na caa bañ a dem boo sàgganee nag ba loolu dem ca moom dana ko yàq ndax ñàkk gaa mën a moytu rek moo tax ñu jéggale ko lépp luñ ca mën a moytu moom du ñu ko jéggale te itam nag loolu nga wax ne teen yeeg deq yeeg déeg yi nga xam ne neexuta muur la ca ngelaw lay sànni bu ko soppee it des na ko jéggale bul ca boole nag neefare jur gi bu fa jur gi day ñëw di ca neefare ka saw moom ba mu soppiku dana ko yàq bu doon na xeetul jur gi rek moo xeeñ ca ndox ma waaye neefare ya mbaa saw ma du moo ca dem ba soppi ko kon du ko yàq wala in xafa du caageenu ndee woyof na at taxawuru soppiku ga bi aalati saqiin ci jumtukaay yi wëgg min xablin moo xam ak boom la aw wihaay ni wala ndab la loolu takk-takk la bu yaatu moom it nga jàpp ko bu baax maanaam la nga xam ne moom ngay génnee ndox ma fa mu nekk moo xam daa bokk ci xeeti tiwo yi wala bu dee baag ba ñu jukkee ca teen ba mbaa bu dee siwo ba ñuy kocce yooyu yëpp ñoo yemoo dañuy seet ba xam ndax dañ koo liggéeyee ci benn matière ci matière yi yàlla tabaxe suuf si wala bokkul ci yooyu su fekkee daa bokk ci matière yi nga xam ne moom la yàlla tabaxaale suuf si mu rëdd doomi aadama yi di ci dund kon lu mu soppi soppi ndox ma bu ko tee baax mel ne teew yi bu nekkee teew weñ bu ndox ma ñëwee soppiku du ci wàññi dara bu dee loo xam ne nag doomi aadamaa ko fabriqué bu fekkee sopp na ko bu baax a baax deesu ko jéggale bu fekkee da ko soppi soppi gu yam rek mooy sopp gu woyof gee mu wax kon ñu jéggale ko la nga indee ndox ma bu dee ak buum mbaa lu li mel nga xam ne doomi aadamaa ko liggéey rek am na yetti wax benn ba dane ak lu mu ko soppi soppi du ca wàññi dara benn ba ne lu mu ko soppee rek daal di koy yàq bi la wax léegi nag te mooy teqale bi bu ko soppee bu baax a baax deesu ko jéggale bu ko soppee sopp bu yom rek ñu jéggale ko boobu nag moom la Ibn Rushd wax taalifkat bii nag moog boroom muxtasar ñoo bokk ànd ak Ibn Rushd ci wax boobu nee nañu nag béréb bii rek moo am fu ñuy teqalee soppiku gu baax a baax ñu bañ koo jéggale ak soppiku gu woyof ñu jéggale ko moo tax mu naa lam yu farraq bayna al bayini wa gayrihi illa fi hadihi al masala wa hiya taxayuru al maai bil alati allati yuxraju biha aw taxayara wala mu soppiku bi athari baxoorin ci jeexiti cuuraay aw xattiraan ni wala godoron bu fekkee ne ndox ma saxaras cuuraay mbaa saxaras leneen moo ko soppi am nag teqale bu fekkee dañoo téye woon saxar sa ba mënta jëm fenn fu may ca ndox ma moom bu ko soppee dana ko yàq ba tey bu fekkee ndab la dañ koo xër ak cuuraay mbaa leneen saxar laata saxar say génn ba set daal ci gaaw sotti ca ndox ba tey bu ndox ma sotti ko dana ko yàq su fekkee ne jeexeeti saxar sa feeñ na ca ndox ma ñu mën ko caa xàmmee waaye bañ cee sotti ndox ma daa fekk saxar sa dem ba set kooka moom daañu ko jéggale waaye bu fekkee dañoo gaaw rek sotti ca ndox ma te fekk saxar sa demagut moom bu ko soppee de su ko jéggale godoron gi wax nag moom arab yi dañoo baaxoo woon a jëfandikoo godoron ci seen ndabi ndox bañ defal leen ci jàppandal goo xam ne dafa lu ñu leen ko ci leneen li wax ni nag mooy ndab li dafa nañ ci godoron waaye jëmmi godoron ga dem na ba set waaye teewul nag boo ci defee ndox rek ba tey ndox mi xeeñ godoron loolu jéggale nañ ko te it bu fekkoon du woon goudron itam nit ki gasoil moo daa nekk ci bidon bi wala kotol boobu ñu raxasee moo ci nekkoon mbaa yu am doole yooyu bañ raxasee defukaay ba mu set wecc wecc nag téewul rek moom buñ ci defee ndox rek ba tey xet ga di ca xeeñ cafka la moom duñ ko jéggalee mbaa couleur ba waaye bu fekkee ne xet ga dong dong moom moo ci des di ca xeeñ daañu ko jéggale bul fàtte nag ne bu fekkoon ni sax godoron ga mbaa lu bokkut ak moom niki ay xor mbaa neneb dañoo fekk ndab la nga xam defukaay ndox la ñu def ko ci ngir bañ ndab la senn mbaa ngir bañ ndab la ayub loolu wax ne ni moom bu soppee ndox ma it daañu ko jéggale moo xam da koo soppi ci couleur mbaa cafka mbaa xet moo xam dañuy tukki moo xam tukki wuñu li nu wax léegi nag ne arab yi dañu daan jëfandikoo godoron bañ may leen ci loo xam ne may ñu leen ko ci leneen moom lay wax nii naa ka jërmi yi ni ki jëmmam ja jëmmi godoron ga in rasa ba ndéem diig na bu fekkee jëmmi godoron ga dafa diig ci taatu ndab la ndox ma moom féete ci kaw ndox ma nag ci xet rek la soppiku waaye soppikuwul ci melo soppikuwul cafka kon daañu ko jéggale wa tax mu naa wa kaza ida rumiya alqatiraanu fi lmaai fa rasaba fi qaraarihi fa taxayara almaau bi fa innahu la yaduru ala al asax li anna alqatiraana kaanat tastacmiluhu al arab كثيرا في الماء عند الاستقاء وغيره صفة صومها فيه لأنه صار كالتغير بالمقر waaye nag fa taxayara almaaw bihi boo ko xoolee ci suuf mu ne la fa taxayara almaaw ay fa taxayara riixul maai bihi amma lawnuhu aw taamuhu fa yadurru xaysu lam yakun dabbaaxan aw shukka wala sikki sàkkaaf fii muxayirihi ci aji soppee moom ndox ma xal yadurru ndax dana lor bu fekkee ndox mi moom soppiku na waaye la ko soppi ngay nattable ba xam daa bokk ci yi nga xam ne bu soppee ndox ndox ma du mën a jaamoo te yàlla am daa bokk ci yi nga xam ne bu soppee ndox ma itam du ko yàq ci wàlluk jaamu yàlla dañuy jàpp ne kon daal la ko soppi daa bokk ci yi nga xam ne bu ko soppee it du yàq ndox ma ci wàlluk jaamu yàlla say boo jëfandikoo ko loolu nag sikk sàkk mooy yaar yoo xam ne ñoo yemoo ci yow dong waaye bu fekkee dangaa jortoon ne la ko soppi moom lu yàq ndox la njort dafa dëgër kon na ngay topp njort la ndax bu fekkee ne yaar lu ci nekk jamtalu na ci yow waaye loolu moo gën a dëgër ci yow loolee gën a dëgër moo tudd njort bu yemoon képp nag moo tudd sikki sàkka aw fii maa wala ci ndox ma nga xam ne jooy la defeef na ko fii fam bi ci gimiñ xel taxaw yara ndax soppiku na ku sexan ndox moo xam ne moom ba mu koy seex ndoxum mutlaq la daal di koy yàbbi su ko wóoree ne bi mu ko sexee ak bi mu ko yàbbee lor ya mënu ko fee soppi mbaa boog jort na bu dëgër ne lor ya mënu ko fee soppi mooma ndox dara sikku ca bu fekkoon ne it day sikki sàkk rek ba xam ndax boobaak léegi loree ci gimiñ ga soppi na ko wala soppiwu ko ba tey mooma ndox baax na dara sikku ca mu des nag bu fekkee kat daa jortu ne lor ya soppi na ko mbaa mu am ci lu ko wóor ne lor ya soppi na ko su boobaa nag moom mooma ndox yàqu na ba tax mu naa ci saraa bi xaasilu maa qaalahu almusannifu washaarihu في الماء المطلق المجهول في الفم إذا حصل فيه شك هل تغير بالريح أم لا أنه لا يضر وأولى إذا ظن عدم التغير أو تحققه بخلاف ما إذا ظن التغير فإنه لا يجوز التطهير به وأولى إذا تحقق التغير aw fii maa wala ñu sikki sàkk ci la nga xam ne xulita jaxaseef na ko bi mu waafiqin ci aju dëppoo xal yu xayyiru ndax dana ko soppi law xaala fa doonte juyoo naag moom loo xam ne ci cosaan mayoon ndox ni ki lat ko leen waaye nañ ñu fàtte ko mu yàgg-yàgg ba mel ne ndox mi ngay danga xellee ca robinet ba mu sotti ko nag ci ndox mi nga naroon na jaamoo yàlla ki ndox ma naroon na jàppe mbaa sangu farata dagam nee nga ci cosaan moom daa doonoon xeetu lat ko lañ waaye nag daa wëree ba mel ne ndox mi nga xellee ci robinet bi kon xam nga ne bu demee ci ndox moomee nga nar a jaamoo yàlla itam du ca soppi dara moom waaye nag dañuy seet ba xam ba mu wër yaagut lu toll ne lii nga xam ne moo rëcc dem ci ndox mi bu ci demoon boobu dana ko soppi wala déet bu fekkee la ca dem daa néew ba nga xamee ne wóor na la ne ba mu wër yaagut bu ci sotti ko woon it du soppi ndox ma kon ñépp maase na ci ne ndox moomu dara sikku ca booy sikki sàkka itam li rëcc ci dem ci ba mu wër yàggut bu ci demoon dana ko soppi am du ko soppi nga xam ne sikki sàkk dong la moom la wax nii moom ci yaxub téere bi su boobaa it ndox ma baax na dara sikku ca mu des nag benn mooy mu wóor la ne kat
li ci dem fii mu nekk moom bu fekkoon ne ba mu doonee gat ko leen la wëri yaagut dana soppi ndox mi ndax daa bari boobu nag wax ji gën a wóor mooy moom it di yàq ndox ma ndox ma mën nga koo jaamoo yàlla moom la borom téere bi wax naa kata xaquqihi nit ki ak wóorloom maa nit ki bu ñu wóoree ne ba wëri yaagut bu ci demee woon nii mu ci demee ci bariwaay bi dana ko soppi xalal arjax yi ci la gën a lëng fa ibnu yunus ibnu yunus daal la mu dëgëral te say boo ànd ak moom mooy bu ci dara ndegam léegi wër yéena moom ba doon ndoxum kese rek mel ne ndox mi rek bu ci demee ak lu mu bari bari di ci wàññi dara say boo rek sukkandikoo jooju wax
bu xukk ma foo àtteeg ndox ma ndox ma soppi koo tax mu wax kama xaw yiiri fii mi ngi mel ne àtteeg aji soppeem ja ndox bu ko leneen soppee ba feeñ ca xet ga mbaa cëf ga ga mbaa couleur ba àtteeb loolee ko soppi rek lay amee bu loola doonee lu laab kon ndox mi laab na ci wàllu aada maanaam naan mbaa toggee amu deme noonu bu mën a jaamu yàlla nag moom nañ ko waxe woon bu fekkee la ko soppi day sobe nag kon ndox ma yàqu na ci wàllu jaamu yàlla ak ci wàllu aada mooy doo ca mën a jaamu yàlla doo ko mën toggee te mbaa naan mbaa dara dafa des daal léegi moom yëggi ko am jur mbaa suuxate ko am mbay loolu moom ba tey mën na ko moo tax mu naa illaa fi nahwi saqyi bahimatin aw zarhin kama sayati wa kuriha sibeef na maa un ndox yasiiru muy aji néew ustoo mi la moom jëfandikoof na ko fii xadas ni ci am toj ndox mu néew li ci jublu fii mooy ndox moo xam ne bu dee ci kuy jàpp daa yom ci jàpp bu dee kuy sangu farata daa yom ci sangu farata su kenn jàppoon nag ci ndox mu mel noonu doon ko tiimale ci dara mbaa ndox mu tolloog ca ngaay am ko ca sangu doon ko tiimale ci dara te ba mu jàppee ba noppi mbaa ba mu sangoo ba noppi boo xoolee ndox ma dara sikku ja ndax daa fekkoon ay cëram sedd wecc bu fekkee ci dëgg-dëgg daal ba mu cay jàpp mbaa ba mu cay sangu am toj moo ko taxan di jàpp mbar moo ko taxan di sangu ndax xam nga toj yaar la toj mu ndaw mu waral jàpp ak toj mu mag mu waral sangu fekkee am toj moo ko waraloon daal moom gannaaw ba ñu bëgg keneen jëlaat ko wala moom ci boppam mu jëlaat ko di ca jàpp njàpp moo xam ne ci dëgg-dëgg am toj la mbaa mu cay sangu ca ngaay loo xam ci dëgg-dëgg ca ngaay lu farata la nga xam ne bu fekkoon ne ba muy jàpp te koy tiimale ci ndab mbaa ba muy sangu te koy tiimale ci ndab njàpp ma day njàpp mi yeesal rek mbaa ca ngaay la di ca ngaay lu mel ne ca ngaayu sunna di ca ngaayu ajjuma mbaa ca ngaayu lu sut it kon gannaaw ba ndegam ndox mu sopp ko du sip ku ko jëfandikoo waat bu ndox mu bari woon it ba tey noonu duñu sib ku ko jëfandikoo waat kon ne saraa ba waxee rek moo gën a gàtt yukrahu isti'maaluhu fi hadasin bi shuruutin talaata an yakuna yasiran wa an yakuna istu'mila fi raf'i hadasin laa hukmi xabasin wa an yakuna al isticmaalu taani fi raf'i hadasin فصار المأخوذ من المتن والشافي أن الماء المستعمل في حكم خبث لا يكره له استعماله وأن الماء المستعمل في حدث لا يكره استعماله في حكم خبث أو حالت ولا واتي به جمم نجاسة سبي لم تغيره سوسوبيوكو دا وخني ندخ مو خامني دا نيو نيو gi nak moy tolok ndabal cangaayul farata mbaa ndabal jàpp rek mooy néew ga bu ca soobee demee waaye mënu su ko caa xàmmee kon des na ko sib ci boo amee meneen man nga ne sax des na ko sib ci kaw juróom benni sart bu njëkk ba mooy ndox mu néew waaye su bari woon kenn du ko sib ñaareel ba mooy sobe sa na toll ne doq gu bàyyi ko ci taw bi lu mu néew néew su ko mënatoon des ko sib ñetteel it mooy bu bañ koo soppi maanaam bu soppi soppi woon ndox ma moom da koy yàq ba wër a wër loolu moo tax ñu ne bu bañ koo soppi ñeenteel ba mooy ñu am meneen suñu amutoon meneen ba tey des ko sib juróomeel ba mooy la ñuy jëfandikoo ndox ma muy lu mënta ñàkk ak laab bu doon loo xam dañ caa sopp rek laab waaye laab mën na caa ñàkk des ko sib juróom benneel bi mooy ndox ma amul fu ñu yokkoo bu doon ndox moo xam ne am na fu ñu amee ak yokkute ni ki seyaan wala ab teen koy gis ko sib moo tax saraa bi naa la xaasilu fiqhil masalati an al maa al yasira wa huwa maa kaana qadra aaniyatil xusli fa aqalla ida xallat fiihi najaasatun يكره استعماله بقيود ستة الأول أن يكون يسيرا كما تقدم الثاني أن تكون النجاسة كالقطرة أي كنقطة المطر المتوسطة ففوق الثالث عدم التغيير الرابع أن يوجد غيره الخامس أن يستعمل فيما يتوقف على طهور السادس أن لا يكون له مادة فإن تغير منع استعماله في العادات والعبادات وإن أخل شرط من باقي الشروط فلا كراهة أو ولغ ولقب فيه تمام كلب أب خج بفكون نخمة أب خج تجا خب خب تمام مدول تأولام نم ينقل كو kon ci tak tak bi nga wax ne ndox ma nga xam ne ab xaj da caa xab bu fekkee ne dafa néew te it soppiku wut ca xab ga te am nañ beneen boole ci su boobaa lañ koy sib fekkoon ne loru xaj ba rek moo jékki-jékki rot ca waaye du wut ci aw làmmiñam des ko sib bu doon ndox mu bari des ko sib wa mu chammasun ak ndox mu ñu tàngal ci jant bi di xuturin ci ëppee xaarin bi aji tàng bu ñu nee ndox mu ñu tàngal ci jant bi dañ koo sib am na ñu ne sib ga sibub sàmm yu yaram dong la nga xam ne kon boo ko moytoo itam du tax nga am ci tuyaaba am na nag sib ga kay sibub yoon la nga xam ne soo ko moytoo am ca tuyaaba ñoom ñu wax sib gi itam dañ koo takk ci réew moo mu nekk réew mu tàng mel ne suufas hijaas ba tey ndab la ko defoon nekk ndab loo xam ne buñ ca dóoree martu mu tàlli mel ne ndabi përëm yi waaye bu fekkoon day lu mel ne ndabal ban maanaam mel ne liñ tabaxi ndaaye yooyu kon bés ko sib am na sax ñu wax ne ndox mu jant bi tàngal sibuñu ko benn yoon ak nu mën di demee mu des ndox mi nga xam ne yaa ko tàngal na yow loola moom bu tàngul ba ëpp diisu ko sib sedd bi noonu la ndox mi ngay jëfandikoo daal ci wàllu jaamu yàlla bu seddee ba ëpp mbaa mu tàng ba ëpp nga xam ne boo koy jëfandikoo nii doo mën a sàmm teggin bu tàngee da nga gis mu walamtiku bu seddee da nga gis na muy def xam ne sedd baa ko waral loola sib nañ ko bu fekkee ne am na ca menn pexe bu fekkee nag amu ca menn pexe nag mel na ne kon sib du ci am waaye nag kon nga seetlu ne bu dee jamono sedd mën ngaa tàngal sam ndox ba mu yem ba neex a jëfandikoo bu dee jamonoy tàng itam ndox mu tàngee ba mën nga koo bàyyi mu xaw a sedd mbaa nga yokk ca meneen mu xaw a sedd ba mu neex a jëfandikoo kaaxuti saalin niki sangoo biraaki din ci ndox muy aji dal
ndox moo xam ne dane tekk nekkul di daw xam nga ndoxum géej moom ak ndoxum dex dañuy daw daw googu mooy tax daana du leen gaaw a soppi nañu mel rek lañu mel daanaka saa yu ne ndox moo xam ne nag dawut mel ne ndoxum deq wala ndoxum mbalka wala ndoxum baaj moo xam nag ndox mu bari la moo xam bariwut nga dugg ca biir nag di ca sangu loolu ana lu ñu cay wax
boo toppee waxi Malik moom lu ca dagan benn yoon benn muy aaya gu wër ak araamal mbaa ak sib ba muy nekk ak araamal mooy bu duggee ci biir sangu ca ndox ma yàqu ndax daa fekk yaramam takk sobe kooku day araam ca na mu waxee bu fekkee ne nag bu ci duggee sangu ca du tax mu soppiku moom ndox ma dara du ca sikk da koy sikk mooy bañ ngaa def moo gën ci moom ca na mu waxee boo toppee ibnu xaasin na moom day wax ne benn mu araam rek mbaa mu dagan su fekkee ne moom ndox mu bëriwut te yaramam daa tire mbaa mu am sobe kon day araam mu dugg ci biir di ca sangu su fekkee ne amu ca mu dagan amutug sib
taalifkat bi moom ndox moomu ak sib la ca wax ndax da ko mróoleeg yamu weesu woon te nekk yu ñu sib ku leen jëfandikoo xaasilu ma fiihi anna malikan yaqulu bi karahatil igtisaali fil maai arrakidi kaana yasiran aw katiran walxaalu annahu lam yastabxir walam takun lahu maaddatun sawaun kaana jasadul muxtasili naqiyan min al ada aw laa walakin laa yaslubu attahooriyata فإن كان يسلبها منع الاغتسال فيه فليس عند مالك حالة جواز للاغتسال فيه بل إما المنه أو الكراهة وهي عنده تعبدية وقال ابن القاسم يحرم الاغتسال فيه إن كان يسيرا وبالجسد أو ساخ وإلا جاز بلا كراهة كن فقول المصنف كاغتسال براكد لا يصح حمله على قول ابن القاسم وإنما يحمل على كلام مالك
وراكد سيتنا نخمي أجدال مات ممدين فيه تموم bari yuñ ko jub jéeri maanaam lu yàlla sàkk mu am ruuti dëkk ci jéeri ji mooy suuf si ju nafsin kuy borom deret saa ilat ngi aji yol walaw kaan ak donte nekkoon na lëxoo di ko ñeel moom ndox moo may daw maaddatun matière matière mooy fu mu yokkoo walu di ba soppeef na nasfun as maanaam as tuur li wonni zawalil fadalaati ba ca jortug dañu ndesit ya ndox moo xam ne dafa ne tekk dawut moo xam am na fa mu yokkoo ne ki ndoxum siyaan wala amul fu mu yokkoo ne ki ndox mu nekk ci seterne wala ci mbànd wala ci bërëgoo aw mbindat loo xam ne maanaam lu yàlla sàkk loo xam ne am na réew am deret te dëkk ci suuf si daw nag ba daanu ca door a dee al dee ca biir moomu ndox bu fekkee dafa góor lee ñu wax daañu sit nga di ko jëfandikoo ci jàpp wala sangu farata wala dindi sobe dañu sopp ndox moomee ngay astituur di astituur ba jàpp ne la nga ca doon seexlu dañ na ndax dañuy jàpp ne loolee ba mu ca daanoo deexe ca biir bunte day ubbiku te